ba tey ñu continuer di dugg ci centre fii nii ñi ngi ci centre Amadou Lamine Dieye ba tey ñuy élection 2024 ñu nekk ci tey ñu ñëw fii fii ci Gueule ba tey ci commune bi rek Fass Gueule Tapée xam naa i tamit dañuy dem laaj ci wàll élection 2024 bi ñëwaat. moo tudd ak foo dëkk. ci mandataire wu Benno Bokk Yaakaar. Mhm. lan mooy seen rôle exactement ci école yi. waaw xam nga surveiller tamit vote bi loolu loolu daal mooy suñu rôle ci. mais ba tey constaté woo leen ci classe yi parce que nañu ne. fii cinq neuf bureaux de vote wala cinq bureaux de vote moo fi am. cinq bureaux de vote si cinq de vote yi que jot ngeen ci gis yenn problème yi parce que buñ demee ci yenn école yi dañuy gis ne dina am faay ci yenn côté mooy. feuille spécimen yi. day gis nuance de couleur yi. Mhm. est-ce que yéen dal na leen. non fii moom amuñu problème boobu sincèrement parce que man maa ngi fi ñëw 7h30 ci école bi la mu fekk dugg naa dugg ci bureau yëpp bureau 1 ba 5 xool mais même emplacement spécimen yi lépp impact macha allah. lan mooy sa dernier sama dernier moo xanaa di ñaan yàlla may ñu ndam rek du Ba rek amul leneen. benn bokk yaakaar. APR benn bokk yaakaar. jot nañ sillonné commune bi Fass Gueule Tapée Colobane xam naa itamit ñu ñëw fii ci Gueule Tapée. salaamaaleykum kilifa gi maa ngi lay ziare. waaleykum salaam euh, man Mamadou Ba laa tudd. Mhm. donc euh, dama ñëwoon pour euh, accomplir ce qu'on dit li ñu wax le mon devoir citoyen. fi ngeen ma fekk ci école Waral Dieng je viens de voter dans le bureau numéro 5. Mhm. moom voté nga ba pare léegi bi nga ñëwee ba léegi jot nga fiy gis constat wala mu déet. bon la première remarque mooy c'est calme quand même c'est calme je ne sais pas man maa yéex a ñëw wala ñi ñi ñoo ñëwul pour euh, pour voter si teel. Euh, mais euh, le constat il est je pense que vous allez remarquer bu ngeen defee un peu tour du centre de vote man dama ñëw rek dugg vote donc ranguma sax ranguma donc euh, bon j'espère que bu fekkee ne sénégalais quand même génn ñu vote serait bien que ñu génn voter quoi parce que au-delà maintenant de celui qui sera élu il y a ce qu'on appelle le taux taux de participation te taux de participation bi quand même mooy gën a jox légitimité ki ñuy fal. mais ñun dañoo constaté ci yenn écoles yi euh, dafa am nuance ci côté euh, spécimen yi est-ce que yéen ci seen fii jot na cee constaté ngeen loolu wala. bon nuance je ne peux pas dire ah bi ma ñëwee vraiment jël naa en fait bulletin bulletin wu en euh, fait tous les candidats c'est vrai que j'ai ñun dañ ma waxoon sax ma jël cinq man leen non non non bàyyi leen je vais être plus transparent parce que le vote quand il est il est par contre euh, je pense que am na ñaar ñoo xam ne foog naa jot gisuma seen seen i bulletin de vote su ma juumul je ne sais pas trop euh, mais sur les les dix huit candidats voire les donc am na ñaar ñoo xam ne. je pense que gisuma seen bulletin de vote je je ne suis pas sûr damay bañ a wax euh, n'importe quoi. mais looy wax citoyens yi ñëwagul pour voter si. nañ ñëw voter le vote c'est choix. ne il faut nga choisir ki nga xam ne moom nga bëgg a sa dëkk pour les cinq ans à donc il est extrêmement important. yaa ndax il est ça va Adja d'accord il est donc important que nit génn quand même si parce que le vote c'est un devoir looy tàggoo ak di leen euh, di leen nuyu rek di leen vous voyez on dit il a pas de hasard dans la vie damaa ñëw di voter si fekk en fait euh, le site la sama rakk moom bon dama la doon tooñ xam nga yaa dama la doon tooñ nan la yéen kenn kenn ngeen génne suñu People TV man la leen écouté suñu People TV ki ki ko ki ko moom sama rakk la ñoo bokk ndey ak baay donc c'est véritablement l'occasion aussi de lui de l'encourager davantage parce que j'ai vu qu'il est en train d'entreprendre bon euh, yàggul ci milieu bi mais quand même en si peu de temps moi j'ai remarqué et c' est c' important ñun ñaanal lañ ko mën man ak sœur bi yëpp sœur bi ñaa ngi may woo sax ñoom ñu ngi côté de de école Ibrahima bi di voté foofu nañ koy ñaanal yàlla rek yàlla yàlla mu eggale ak kon ñu ngi lay jaajëfal merci beaucoup jërëjëf comme ni mu ko waxee rek mu nekk directeur boo xam ne c' est un directeur exceptionnel muy di mu jàppale ñu ba tax ñu mën di wax ak nit ñi xam nga mu yombal la tamit sitam ndax. administrateur la ci sitam boo seetee ak keneen ak keneen mu dépoule ay emploi ay jeunes yu bëri tamit di ci liggéey xam naa tamit noonu lay demee dañuy demaat ci biir rek xoolaat beneen candidat wala beneen votant wala votante xool yenn euh, votant yi ñu gis benn jeune di ko laajte moom dafa ñëw voté voté na sax ba pare xam naa dañ koy tàllal sunu micro laaj ko salaamaaleykum. maa ngi lay ziar sëñ bi ñaa ngi lay delloo ziar bu baax. noo tudd ak foo dëkk. Abdoulaye Ndour Fass bâtiment. ñëw nga voté si ah. ban bureau de vote nga voté. ah voté nañ ci jàmm bureau numéro trois laa voté. est-ce que si bureau numéro trois boobu noonu est-ce que jot ngeen ci gis problème wala mu déet. ah non wax dëgg yàlla gisuñu si problème waaw franchement mi ngi jaar yoon mi ngi déroulé nice alhamdulilah. mais dañoo gis ne. Mhm. Euh, yenn yenn yenn spécimen yi. dañoo nuancé ay couleur dañoo mel ni ñoo bokk même couleur est-ce que jaxas jaxas du ci am. ci ci ci ci spécimen yooyu. waaw loolu seet naa bari surtout spécimen yu weex yi mhm. euh, gis naa yu jamaay fay bari na ak yeneen spécimen yu mu ndurool trop te loolu du yoon waroon na mën a am benn couleur différenciée boo xam ne yenn mag ñi pour pour ñun daal doon problème mais mag ñi nga xam ne certain âge dinañ am problème pour xàmmee ko pour mën a euh, xam bii mooy kii bii mooy kii bii mooy kii. waaw mais loolu daal lañ ci gis moo xam ne moo am défaut ci élection yi. mais yow en tant que jeune lan ngay wax sa moromu jeune. waaw nañ jug ñoom voté ji rek nañ jug dem voté ji parce que euh, Sénégal toll na moment boo xam ne métti na trop ku ci nekk jeune bu ci nekk boo waxaleeg sa borom rek xam nga ne réew bi métti na nu ñu yoree gouvernement bi métti na nu ñu nu ñu doxalee métti na munoo liggéey munoo am. da ngay xëy di chaque jour di dang dangi doo gis dara loo yor dépensé ko toog vie bi na waaw bu ñu sañoon daal ngeen jug voté massivement affaire yi mën a changer waaw ñu ñu ñu neexal projet bi quoi. ñu ngi lay jaajëfal. waaw alhamdulilah. jërëjëf laay comme niñ koy defee rek fii ñu ngi waat fii ci école école pay école pay nag mi ngi nekk ci diggante Soumbédioune ak fii ñuy wax Gueule Tapée boo seetee centre de vote bi huit bureau de vote moo fi am boo seetee tamit bureau de vote yi ñu ngi ñu ngi voté normalement amul benn problème. gisuñu si détecté wuñ tamit problème ci presque la majeure partie ci euh, secteur bi di Gueule Tapée jotuñu cee gis problème xam naa yi tamit noonu lay demee à chaque fois rek ñu leen di dégtal yenn information yi di leen ko indi di leen ko jox ak sunu People TV présidentielle 2024. di remercier tamit kii di Idi xam ne moom ñoom moom la ñu àndaloon ci wàllu xarala bi mu ñuy topp. di ñuy sillonné commune bi muy Fass Gueule Tapée Colobane xam naa ci noonu rek ba léegi du ñu noppalu dañuy demaat ci yeneen écoles yi di leen joxaat yeneen information ba tey ba guddi gi ñu nag yéen ñu xool tamit fan la ndam li di féetewoo xam nga noonu dañ leen koy joxe live en direct xam naa dañ leen di jox di daje ba si kanam incha allah.